ñëwaat na allah. jërëjëf di la sant bu baax a baax li nga nangu wuy si. Euh, sunu invitation ñi ngi jëm ci atum 2024 mu doon at moo xam ne euh, ñi ngi koy xaar ndax euh, déjà le contexte si prête jamono ji ndax présidence bi xam ne war na am mu bëggoon a xam un sa gis-gis at moomee nan lañ ci war a demee ndax ay coppite ci wàllum politique yu am solo économique lu ni mel Sénégal mi ngi koy xaar. waaw alhamdulilah donc. deux mille vingt quatre euh, yegsi na at bu ñu doon xaar la virage bu am solo la par rapport ak vie politique sénégalaise euh, ñu ngi koy xaar ak jàmm fas ne ci jàmm ak jàmm génn ci ak jàmm parce que quelle que soit situation événement yi dañuy jàll nit ñi ñoo fiy des ak peuple bi ak intérêt peuple bi yaakaar naa incha allah dinañ ci dem ak jàmm et puis que le meilleur gagne que ñu passé comme ni ñu passé euh, d' autres rendez-vous yu amoon solo aussi yoo xam ne Sénégal jàll na ko. justement que le meilleur gagne ndax ñu soobu ci langue gi fi mu nekk nii euh, bari nañu lool xam naa ne am nga jotu euh, saytu les différent profils yi nga xam ne ñoo ci soobu te jii nii euh, ban profil moo gën ci Sénégal waxuma nit ki jëmm ji mais xëy na par rapport ak les propositions par rapport ak profil bi ki nga xam ne moo war a yóbbu Sénégal tey jii fi ñu fi ñu yaakaar. maa ngi xalaat na apolitique quelqu'un boo xam ne mosul politique parce que dafa mel ne politique yi ci àdduna bi yëpp lañ leen di changer. Mm-hmm. boo xoolee États-Unis Euh, Obama après euh, donc jusqu'à Biden ba fa nekk nii en pensant par Trump kenn du ci politique boo France aussi de de de de. Euh, avant Macron mm-hmm. donc Sarkozy n'était pas un politique jusqu'à Macron jusqu'à aujourd'hui donc politiciens yi la dindi comme li philosophie arabe wax ne kal xuruur fil ghaaba ñoom dañu mel ne ay. ay golo ci biir ci biir àll daal ñoom bu ñu àndee baaxul bu ñu tàggale ko baaxul. xool xoola Sénégal problème yi ko problème politique dugal deux mille vingt et un cent quatorze finalement trente six morts yàlla rek xam sax le nombre exact donc lépp entre politique la yow la du man yaa def lii def. vous les mettez actuellement. politique la ñu war a tege na le tuuti parce que depuis soixante l'indépendance ou avant même l'indépendance ba léegi les politiques ñoo fi nekk mais ba léegi apporté guñ solution toujours ce qu'ils sont à l'opposition Euh, gàdd le même discours ñu nekk pouvoir gàdd le même discours kii ne li nga fi baaxal tey nga fi bonal ëllëg mm-hmm. euh, li nga fi bonal ëllëg nga ci position bi nga nekk wala wala selon ses je pense loolu Sénégal yeewu nañ ci et xew fépp mu lu fi ñàkk xew ah. muy changement tout complètement maa bi ñuy door Abdoulaye Sylla mooy sa candidat moom nga fas yéene soutenir ci présidentielle yi ñu jëm bëggoon naa xam pourquoi nga porté ce il rien de politique comme ni nga ko waxee léegi nii. c'est ça d'abord c'est ça sa qualité il n'a absolument rien de politique bi ci toppaat mooy c'est un Sénégalais et puis c'est un Sénégalais parmi les Sénégalais les plus respectés dans le monde euh, premier de BTP en Afrique bu ñu ko waxee tey xamoo woon ne c'est un Sénégalais. Mm-hmm. parce que loolu lépp parce que li mu li mu discret moo tax mais mooy premier BTP en Afrique tey bu ñu nee BTP en Afrique c'est un fierté la c'est une fierté donc euh, bu ñu la waxee ne la y a un Sénégalais qui paye deux mille personnes euh, mensuelles et cinq mille personnes de manière indirecte c'est un Sénégalais bu ñu ne la à part l'État du Sénégal quelqu'un qui paye un milliard par mois Seydou Sablaye Sylla au-delà sax ci lu mu fi def ak social am ak yooyu yooyu am na lu ko ëpp solo ci moom ça veut dire que sa vision politique c'est extrêmement important. mais justement est-ce qu'il a une vision politique parce que moom dégguñ ko mu wax ay nit ñoo koy waxal di porter li nga xam ne mooy son combat euh, ñu bëggoon xam un peu est-ce que loolu c'est pas c'est pas un peu risqué maanaam euh, la présidentielle c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Mm-hmm. cet homme doit s'affirmer wane que ne bëgg na ñu dégg ko ci euh, di ko ci mettre à l'épreuve xëy na ay jaar-jaar yoo xam ne am na ko ci wàllu administration yooyu c'est important mm-hmm. mais tey jii nii bëggoon naa xam pourquoi ngeen bëgg a jël boobu risque. oui parce que que euh, un homme ou une personne mm-hmm. euh, boo xam ne mosul génn mais mi ngi communiquer toujours parce que ñu gis ay action xam nga communication dafa dafa dafa bari mode mode bi ci gën a pertinent mooy communication par acte là il a dépassé plus de trois cent mille parrains jëm cinq cent euh, hier amaat na plus de trente mille parrains yoo xam nit ñi volontairement ñoo koy indil lan mooy loolu pourquoi parce que xam nañ ko ci jëfam parce que xam xamuñu ko ci nit en tant que nit wala xamuñu ko ci kuy vraiment bavarder ci télévision yi wala ci rajo yi mais chaque jour ñu gis ak tam yaakaar naa loolu loolu doy la système la nag stratégie la que moom génn euh, dafa jàpp ba nu muy def xëy na su moom il devrait au moins parler aux Sénégalais même si c'est une fois ñu xam ne il a cette intention de se présenter présenter comme ni ko ay moromam defee ku ci ne Amadou Ba ku ne Idriss Seck va les mettre dans, dans mais écoutez tout tout candidat à sa personnalité à son personnage aussi. Mm donc tey Amadou Ba n'osait pas demander eh, parrainage euh, parrainage sans, euh, sans Macky Sall donc ñu bëri tey ñemewuñu woon demander te fekk suñu am charge étatique suñu am responsabilité. Mm-hmm. mais Abdoulaye Sylla na ko parce que quoi parce que parcours am permettre na ko parce que li mu fi def permettre na ko. lim defal Sénégalais yi côté social benn nit bu ma sa tabax hôpital sept milliards hémodialyse mais Abdoulaye Sylla la bëgguma sax di di wax ci parce que yooyu amul solo. mais ay bienfaiteurs Sénégal am na ci ñu bëri ah. assez ah, lu baax. Ah, ah, mais moom man daal li ma xaw a jaaxal jaaxal sénégalais yu bëri bëri. Mhm. c'est la question qu'on se pose bañ ko ba même effectivement ko bëri en aussi xamuñu ko xamuñu ko. mais mais xam nañ ko. c'est gisuñu ko xam xam nañ ko ak gis nañ ko du benn ñi gis ñu bëri toujours régulièrement fréquemment dans la télé mais nit ñi soxlaw amuñ soxla amuñ solo ci nit ñi. Mhm. mais kuñ gisul ba pare eh, man koo pare nay plus de cinq cent mille et quelques parrains. Euh, mais même bi on on y a y a des à dire am na ay jamono avec euh, win wintu winam boobu noonu mu defoon gars yi jàpp nañ ne euh, genre arnaque la pour avoir. les les identités des des des des des bénéficiaires. mais mais mais lan la koy doyee te man un. parmi ses plus proches exemple man tey détenir naa plus de deux cent mille carte ba pare sax jëluñu yooyu. moom yi mu jël moo ko jël à part moom moo ko wuti woon benn par benn par benn jusqu'à mu am sa nombre donc euh, pense que yooyu c'était c'était c'était tout est toute une machination organisée par le pouvoir parce que gis nañu ne nekk euh, nit bu bees ñëw na nit bu Sénégal yi bëgg ñëw na nit bu am parcours bu mën a exposé ñëw na nit bu am jaar-jaar yu bëri boo xam ne de dix mille francs aujourd'hui parmi les plus grands milliardaires africains ñëw na donc c'est un Sénégalais doon un grand une grande personnalité euh, arabisant hein euh, su ma la xoon turu sax ma ko mais quand il a décliné euh, son programme par rapport aux arabisans man mi doon ànd ak moom toujours xam ko je ne savais même pas que Abdoulaye Sylla est un arabisant kooku tey moom ci boppam moo créé toute une fédération qui fédère plus de deux et quelques associations arabisans pour jàppale Abdoulaye Sylla par rapport à sa vision aux arabisans Abdoulaye Sylla lui-même soog ñu leeral nañu pourtant son épouse arabisant la moom Abdoulaye Sylla arabisant la su ma la waxoon. qu'appelez-vous arabisant. arabisant ndongal daara wala. pas ndongal daara nous qui avons appris l'arabe. ok Mon, euh, écoutez moi je suis docteur en économie islamique. Mm -hmm. c'est une science. Ouais. je l'ai appris euh, à la langue arabe. Mhm. Euh, mooy ñi nga xam ne si arabe lañ jàng nous sommes 20 pour cent de la population. vingt pour cent nous sommes majoritaires presque donc mais pourtant dañu marginaliser de telle sorte que tekkiwuñu dara moo tax euh, ñu identifié wu par rapport ak profil Abdoulaye Sylla c'est important bientôt di ngeen gis mouvement boobu ça va être une grande fédération bu topp si ginnaaw Abdoulaye Sylla parce que quoi parce que moom c'est un arabisant bu jàppale arabisant yi lu bëri euh, su ma nee arabisant pas ku jàng arab di ci kii comme man exemple mais am na ci am na ci vision net fi mu nekk Dubaï aussi mi ngi mi fay dimbali Sénégalais bi ko ñu ko dina jàng su ma la xoon tey waajuru jabaram waajuru soxnaam kilifa la bu mag boo xam ne def na lu rëy ci ci jàngu arab def na lu rëy ci l'islam mais bëgguma politiser euh, tur waajuru jàmbur mm-hmm. donc ainsi de suite donc mu nekk expérience bu amoon boo xam ne tey néew na ci ñi fi woyee yee candidat boo leen ko waxoon seen seen xam-xam yeegul foofu. mais est-ce que saytu ngeen bu baax a baax son profil parce que euh, yaa ngi ma naan arabisant la euh, wayjur soxnaam euh, am na lu mu def ci diine dëgg la diine moom saa ñu ko tuddee rek on applaudit mais aussi. ce qu'on a fait souvent euh, ñu war dañ ci posé ay questions boo seetloo le débat s'est posé récemment ak yenn adversaire ak yenn candidats yi léegi nii qu'est-ce qui différencie un peu le cas de Abdoulaye ak ñi nga xam ne ñu leen di jiñ yenn yi xalaat ne am nañ intention inavouée ëllëg non non son parcours d'abord son parcours je vous ai dit que quelqu'un bu commencé dix mille francs ba tey muy fay deux mille personnes. mais justement est-ce que vous êtes interrogé sur l'origine de sa fortune. mais écoutez mais travailler mais il a sa société il gagne des marchés. Euh, écoutez non c'est une question de chance Abdoulaye Sylla est parmi les rares Africains. Mm-hmm. qui ont gagné le marché Dubaï des dizaines de millions de dollars plusieurs fois. xaalisam xam nañ ko mais parce que BTP la am société am am il a quinze sociétés yu mu def ko benn société mu nekk Ecotra mais quand même. li mu fi liggéey fi mu commencé ba mu fi mi ngi fii. kon am na ñu doon wax ay proximité ak la famille euh, bi nga xam ne moo fi nekk muy Faye Sall. oui mais écoutez. Euh, am na sax xaalis bu seen diggante bu ma juumul ci ay jamono. xaalis jamais xaalis jamais simplement moo ko. Abdoulaye Sylla mosul jox ay milliards Macky Sall. mais bien sûr que. Ah. parce que parce que parce que xaritu soxnaam la mais d'ailleurs loolu kay wér na ne kon ki mën jox ay milliards Macky Sall te nekkul président kon amoon kon akoon li ñuy wax lu dëgg parce que kon Macky Sall la muy ko milliards. ku mënoon jàppale ab Ablaye Wade Ablaye Sylla depuis deux mille deux mille trois il a ses sociétés buy def carburant am na beneen société buy def BTP ñoom ñaar ci la commencé woon yàlla di ko dimb dimbali mooy góorgóorlu compétent nag. Mhm. jàng am expérience am xam-xam comme comme sénégalais barul lu ñuy jàppale seen doom mais écoutez mais mu dem Dubaï gañ fay marché il laa gagné combien de marchés des millions des millions de dollars. et la pouvoir ne l'a pas introduit. maanaam nguur gi fi nekk jàppuñu ci loxoom am ñu ko présenté. absolument rien yooyu ëllëg bu feeñoon dina gën a xaw ban nguur nguur boo xam ne yow bi ngay ñëw moom moo jàppale président bi est-ce que kooku na nekk aussi nga jàppale loolu sénégalais moo nanguwul umpale. Mhm. tey boo nee nit da gis ko jóg ne mais kii xam naa ko kii fi la jaar fekk xamu ko mais dafa bëgg justifier son échec loolu ñu dañ ko jàng ci science politique mhm. comprendre nga mhm. que mu ngi wax ne xam na diw fekk échec ko boppam lay justifier parce que yow mi ne Ablaye Sylla il faut nga justifier pourquoi parce que Ablaye Sylla diw ko teg loxo c'est pas vrai Ablaye Sylla moi sëñ Modou Bozien les Sénégalais ma connaissent xam nañ ma ci sama fulla ak sama fayda man xam nga ne man ay caaxaan dugguma ci Ablaye Sylla m'a convaincu par son parcours m'a convaincu surtout par son programme. ñëw nañ nañ ci ñëw. sa vision politique. sa vision lan la exactement nan nan la nar a téye Sénégal ëllëg. mais je vous ai ci vingt pour cent sommes les arabisants vingt pour déjà programme ñu ak ñun Macky moo ñu defal tuuti il faut la mm-hmm. muy indi équivalence entre bac arabe bac français c'est ça mm-hmm. foofu la ci yem mais après c'est là il a il a il a plus de place euh, plus de reconnaissance voilà mm-hmm. plus quand même euh, d'implication euh, dans les instances dirigeantes pourquoi pas. parce que ñiy jàng tubaab ñoo leen dàq. a ëpp leen xam-xam c'est la langue qui fait la différence. ab euh, euh, l'a compris ainsi bërki démb bërki démb lan lañ wax deux heures du matin il m'a dit que war nañ dindi leen war nañ enlever sanction bi ñu teg ci nit ku ñu condamné ñu teg ci ne yow doo ma nekk candidat parce loolu. ce n'est pas sanction bu ñu la infliger yow mais ñi ngi ko teg ki nga xam ne moom def la woolu ngir bëgg la fal te war nañ seet ki ñu ne kooku ñu sanctionné ko moom mais buñ seet ki ko bëgg fal ñu condamné ko. ne war nañu xool aussi ñi ñi ñi bëgg a jiite réew mi nit ki tam doo def lu ne wàng. ñu ñu ñu lay bàyyi ngay compétir. non non attendez loo man def ak lu mën doon nañ la sanctionné yow. yow sañoo voté yow sañoo nangam sañoo nangam mais ki la wóolu ngir sañ la voté mais mais écoutez ça c'est pas la ne. même bu ñu falee ko xam ne euh, voilà trompé na nit ñi ba mais ça mais dara. oui tey jii nii bu fekkoon ne euh, ku ci nekk saytu nañ a baax. xool nga dénk dans la passé. mais mais mais mais mais déedéet mais saytu nañ leen bu baax lan nga gis dindi nañ Khalifa Sall parce que nañ dafa sàcc indiwaat nañ ko le moment venu parce que c'est des sources politiciennes dindi nañ Karim Wade indiwaat nañ ko dinañ dindi diw tey bu subaa dinañ ko indiwaat loolu moo mooy a dakk léegi li ñu war a def lenn la. maanaam vous êtes pour une élection inclusive. ñëpp bokk non non au-delà d'inclusivité ñu xam ne le peuple n'est jamais coupable. le peuple n'est jamais. justiciable devant sa justice un peuple ne peut jamais être justiciable devant sa propre justice. Mhm. Euh, ñi bëgg Ousmane Sonko tey jii waruñu leen xañ. seen droit man tànn Ousmane Sonko. c'est exactement ça. Mhm. parce que peuple bi lu peuple man def rek peuple justiciable. Mhm. peuple amul tort ah, devant sa justice le fait que peuple yu bëgg ne diw mais waruñu leen xañ diw loolu mënul nekk parce que peuple amul tort devant sa propre justice comme ni ma ko waxee donc en fait Abdoulaye Sylla ci loolu compté na saa bu fi toogee élection bu fi amatee ñëpp a ci bokk. donc mais loolu c'est une extrêmement euh, c'est une chose extrêmement importante. mais Sénégal aussi euh, xëy na Abdoulaye Sylla bokk na ci ñi yàlla may wërsëg. ak euh, sutura mais métti trop ci ñenn ñi. ci loolu lan la ci fas ne def pour que yëf yi mën a baax bokk ci ñenn ñi. d'abord programme bi mu njëkk am mooy bu toogee sàcc du am Sénégal di fi nekk doy na fi de. comme ni ko suñu borom wax ci waaw ni ko wax suñu borom wax ci àdduna yëpp wala ko fi àdduna mustaxaru ma temps la xiin donc il il suffit que ñu dénk Sénégal koo xam ne si moom am na lu ko doy xam nga ñu fi nekk dañu xiif bari ñu ñu amel ay retour mhm. ñoo xam ne si da ngay jëf nit ñëw di la jàppale ngeen di ànd kee lebal la kee joxe dërëm soo yéegee nga war a jëlaat àllu réew mi delloo ko mhm. mais Ablaye Sall alhamdulilah du loolu kuy def couche sociale dépasse deux milliards annuel soxla wu dërëm réew mi koo xam ne si yaa ngi fay deux millions deux mille personnes soxla woo xaalis su réew mi koo xam ne aussi sa campagne yëpp accepté woo sax keneen dimbali la nangu woo ko sa xaalis kese nga jël. presse baa ngi koy dimbali am na benn lobbying boo xam ne. bi ñu koy doxal ci suuf dama ne bu doon loolu presse su ma nee promouvoir di wax ñoo xam dañuy wax rek te defuñu dara xam ngeen di invité plateau yi lan indi wax la indi mais joxuñu leen di lañ def mais Abdoulaye Sylla présente des actes wax naa wax mais c'est l'information mhm. ah en charge kaay leen doo leen fay di di préparer sax ay oto yu leen di jël seen kër pour leen yóbbu doo leen fay mais kenn du wax dañuy noppi mais quelqu'un boo xam ne nee nga soo toogee kat ñu dindi seen xañ leen seen droit ñëpp di nga leen ko def te kuñ fi tëjati ku nekk yow yaay am problème mais ñi la bëgg a votel du ñu mën la votel mais loolu c'est pas euh, programme mais koo xam ne si da nga fi toog ne boo toogee yow deesu la fay doo am 15 mois doo am dara mais loolu deesu ko wax donc Ablaye Sylla li mu fi def ci lu baax mais loolu xëy na sax moom mi ngi koy def jubluwu jubluwuloon pour ñu wax ko mais la presse a l'obligation d'informer juste et vrai xam nga lu bonoon ñu waxal Ablaye Sylla lu dëkk mais lépp loo xam ne si waxal nañ ko dem vérifiable mais c'est l'information. Ah, mais ndey mbir gi kañ la wax ak Sénégalais yi. bon. jot na jot na voilà yaa ngi naan sànq parrainage bu matal ngeen ko. Mhm. bëggoon naa xam sax déjà naka ngeen ko matale parce que nee nga ma yow rek am nga lu mat euh, ñaata. non jëlul sama parrainage. ok du jëlul sama parrainage. liggéeyaloo ko ci loolu. non no non non du tout parrainage bi dafa préféré woon dem wuti ko benn par benn si terrain bi mën na ko dénkal keneen mu dénk keneen ñooñu réussir ko alhamdulilah macha allah mm-hmm. def ko nga xam ne si. mais bëggoon na xam euh, nan lañu convaincre Sénégalais yi ne euh, vraiment on on l'a pas encore entendu. ma ma wax la ko ma wax la ko exemple. Mm-hmm. Mm-hmm. deux cinquante mille parrains yu ñu am Touba na lañ koy amee. na nga def maa ngi fi rek xam nga Ablaye la déedéet xam nga barabu suñ Fall waaw xam nga ko defar eh ko koy dem koy dégg rek mooy Ablaye la eh kaay ma jox la sama carte d'identité. noonu. barabu Sëñ Sidi Maxtaar. magal euh, a dëgg la wuy ma attendez Mouride la non am nañu doole trop Sénégal Mouride lanu Mouride lanu xaaral ma ñëw mais le Sénégal c'est pas ah, seulement la communauté Mouride non écoutez Tivaouane xam nga Abdoulaye Sylla non non mooy ki fi dugal junni nag yi yi ay ci réew mi yëpp am sama carte mais ñaata nit ñoo ma woo ne ma indil ma ay centaine de carte d'identité dañ leen koy jox may leen noonu man pare ne wu ma Abdoulaye Sylla dem leen jox ko commission bi mm-hmm. ñaata exemple nit yoo xam ne si ci lay liggéey di c'est que Ablaye Sylla au-delà de de ces deux mille employés il a cinq mille personnes qui travaillent ci moom de manière indirecte il a plus de mille huit cent fournisseurs waaw kenn ku di ngay liggéeyal bu candidat. mais entreprise entreprise ak réew ne yaa ngi ko wax ce n'est pas ce que pas comparable Bougane Gueye àggul ci dimension Ablaye Sylla ah mais Bougane au moins Sénégalais xam nañ. non mais bien sûr je l' ai mais non non je l' aime bien non dama ne dama ne dama ne je connais dama ne je connais Bougane Gueye je l' aime bien. Mhm. mais agul ci carrière Abdoulaye Sylla. lu leen wutale. non Abdoulaye daf ko ëpp daf ko ëpp doy la ko ëpp ci lépp Bougane amul 2000 emplois amul 5000 emplois. ay dërët war na koo jege de. ma ko mais amu ko. comprendre nga donc ce que Ablaye Sylla fait fii ci Sénégal Bougane ngay defu ko Bougane jàmbaar la mhm. ñu ngi góorgóorlu jërëjëf ci combat bi la bokk mhm. ci préférence nationale bi Ablaye Sylla lay xeex ci la bokk mhm. am na place ci wetam du dëgg comme ni ci keneen keneen am noonu booloo moo leen war la dinañ ko def te ñoo ngi ciy liggéey te bu soobee yàlla Ablaye Sylla dina fi diri une très très grande coalition Ablaye Sylla dina fi diri des. mais day fekk ngeen jàll parrainage déjà non non parrainage. non parce que parrainage entre wut ko ak déposé beeg euh, nangu bi. Mm. Euh, ça fait deux day bees ngeen ci mbir mi am na ay ndig sërëx yoo xam ne est ce que yéen a ngi ciy bàyyi xel. non quand même ñu ngi ko dénk duñ ci ay cuune xanaa. waaw ah. defee du dëgg bi toppaat mooy nag ay combattant lanu. Mm. bu la defee dañuy toog dañu xëy nañu validé wu leen de. ah du ngeen ko du ngeen ko ah, ah, ah mais ku fi bëgg jàmm doo ko fi def tamit. quand même Ablaye Sylla te du man rek maa ne ci ginnaawam de attention Ablaye Sylla kenn laa ci staffam Mhm. c' est que nag chance am mooy man maa théoriser candidature. waaw ah, dañu la xamoon avant ma dañ ma xamoon avant. Mhm. ma porté ko déposer mon image tekki ba sama équipe Ablaye Sylla maa ko ne kaay nekk candidat. Ah, loolu moo jaaxal nit ñi kaay nekk candidat rek. ma ma non nit ki day bëgg am yéene. sama la woon te du man rek maa ko wax ah. bu ñu la waxoon ñaata personnalité ci opposition bi tey ñoo pare pour topp ci nga ne déjà gagné na attention. Abdoulaye Sylla moom mooy challenge bi actuellement. mais et les préoccupations des Sénégalais maa la koy wax sànq 2021 ak léegi li xew Sénégal bëri na trop 2019 sax laay wax Covid bi am na fi. guerre Ukraine bi am na fi. Mm-hmm. ay nit faatu nañu ci ay manifestations. Mm-hmm. amul benn yoon bu mu yëkkati kàddoom ànd ci mbir yu mel noonu. xam nga yëkkati kàddu léeg mu am limite parce que politiciens yi wax lañ bëgg ak profiter mais Abdoulaye Sylla day def tey mënuma la wax ñu bari ci seen bopp gën a àdduna ñu xam lan lay Abdoulaye Sylla defal parce que kenn bu wax man combien de fois la intervenir dans les actions dans les occasions dans les circonstances te du ma permettre ma wax man comme ni mu ko defee ñeneen ak ñeneen ñeneen pourquoi mu mën a ñëw taxaw nekk Ablaye Sylla rek ñëpp pare ne ko fekkoon ñu ñu nekk ay personnalités politiques yëpp mënuñu am parrainage moom mu dépassé cinq cent mille parrain pourquoi parce que dafa am lu fi defoon avant donc je pense que euh, du yàgg danañ ko xam il est il est temps nag que mu génn loolu je suis d'accord je l'ai dit ça wax naa ko ne ko euh, timing atteint pour que pour que vous sortiez sénégalais yi gis la. Mhm. mais xam nga xam nañ ne présidentielle euh, parti gañatu ko mouvement gañatu ko. c'est de grandes coalitions te yéen jàpp ngeen ne les hommes ñoo atteindre leur limite alors que bu weesoo ñaar ba ñett ñoo xam ne c'est des indépendants ñu mel ne Abdoulaye Sylla wala Bougane Gueye Dany le reste yëpp c'est des hommes politiques est-ce du ngeen leen soxla ëllëg aussi pour gën a yaatal réew mi loolu nga ne ñëpp yàq réew mi mais yàq réew mi taxul ñu génn la ci réew mi Macky Sall deuxième chance gëm pas de deuxième sens sax Macky yàq na ci réew mi lu bëri. mais aussi am na lu fi defar. Mm-hmm. Macky xam nga ne xam nga ma dama mas a contre Macky Sall ci àdduna. Mm-hmm. mais d' accord Macky Sall génn dem Macky Sall bu génn dama koy xëcc ne ko kaay toog di def li nga mën. am na njëriñ lool jàmbaar la lool ci wet. keneen bu génnee dañ koy dem jëli Ousmane Sonko tey bu ñëwee dañ koy dem jëli parce que au moins am nañu ko fi bëgg am na lu mën sëñ Mourou Bousso yow euh, sëñ aw Awa Balla Ndiaye mais am na loo man mhm. kenn ku ne am loo man loolu impliquer tous les fils voilà l'intérêt du pays et je pense que Abdoulaye Sylla ci loolu la nekk euh, et puis je pense que pourquoi Abdoulaye Sylla gisuñu ko sa communication continue pourquoi Abdoulaye Sylla gisuñu ko ses actions politico-économiques continuent pourquoi Abdoulaye Sylla gisuñu ko ses actions sociales continuent nit ñi di ko gën a xam di ko gën a bëgg c'est pourquoi il faut ñu laaj loolu jërëjëf di la déjà. <laughs> merci beaucoup maa ngi lay gërëm di sunu gan nekk guide religieux responsable aussi euh, bokk ci staff euh, bu Abdoulaye Sylla candidat déclaré la présidentielle de dig daje lundi incha allah beneen gan jaa ngeen jëf merci beaucoup.